alors Baye kontaan nañu euh, mbokk comme nu ko Baye waxee rek bii mooy di e fois ñuy def euh, course mbaam bi ci ren yàlla def na Sanokho ba mu koy def li ko taxoon muy jóg fête indépendance la woon ndax indépendance pour bégal xale yi bégal villageois yi ku ne ak ni ngay bégee ñii da dem ca défilé ba ñii dem ci leneen mais ñu ñëw indi course mbaam nag suñu aadala la suñu cosaan la mm-hmm. yàlla def nag muy dox dox boo am solo boo xam ni gis nañu tax ñuy jógee bitim réew bu ñëwee gis suñu aada gis suñu culture boobu ñun ndamoo ko di si gërëm nag sànn ko ndax idée bi yëpp ginnaaw yàlla ci moom la jóge mu koy def yàgg koo def di ko ñaanal gudd fan ak wér comme ni ko Mbaye waxee yéen ngeen yàgg nekk ay partenaire am di ko jàppale bëgg nañ ci ndax boo xoolee 14 régions Sénégal mën na ni kees donc lu yàlla lii am kon won na ni kees si côté culturel bi Sanokho dundal di si def lu am solo ren nag mu tombé woon a koor gi te 3 avril bi moo tax ñu indi ko euh, le 7 bi muy samedi bii nu jublu ñu war ko def fële ci hippodrome Ndiaw Macodou ci Sandakos di ñaan yàlla nag ñëpp ñëw ci di leen gërëm di leen sant Sanokho dana leen wax détails yi ak ñi nga xam ni tolof tolof yi mu si am ndax organiser yi rek yombul ndax nekkul budget boo xam ne Sanokh da koo yor wala état bi jàppale wala municipalité bi jàppale ko ay bonne volonté ak moom rek ñoo ko si jàppale yàlla def si sutura ndax lépp pour bégal askanu kees bégal tamit jeunesse su kees loolu moo ko tax a jóg di ñaan rek lépp lu ñu ciy def rek yàlla may nu ci ndam ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm ñu bàyyi kàddu goog Alaaji Njëgal Njëgal bisimilah. Euh, jërëjëf daam salaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk presse yi ñu ngi leen di remercier waat yéen ñëpp di jiital ci remercier ci côté ci loxol Babacar Ndaw bu Sud. mu jotale ko ñëpp di wax ni vraiment ñu ngi leen di remercier ndax chaque année bu ñuy def avant première course mbaam bi ànd ak suñu président Nokho vraiment bu ñu wooyee ñëpp ngeen ñëw jàpp ci di santaat yàlla rek di julli ci bi di si remercier bu baax Nokho mi nga xam ni depuis 3 mois vraiment mi ngi daw mi ngi def yàlla dogal ren 3 avril bi ñu ko doon def tombeeg weeru koor ñu ni kon bu ñu koy koritee samedi bi ci njëkk tombeeg le 7 lañ koy def comme ni ñu ko daan defee ci centre de course hippodrome Diaw ma kodd à quinze heures détails yi nga xay ne moo ci ne yàlla dogal na suñu président depuis deux mois trois mois ñu ngi ciy daw ba tey fii ñu toog nii donc ñu ñu jëlaat lépp teg ci loxoom daal li ñu yàlla li ñu def mooy communiqué bi rek mooy rap fàttali nit ñi ni course mbaam bi am na ren kañ la samedi fan la hippodrome Diaw Makoto kañ la la samedi set li ci des ak détails yëpp incha allah bu ñu duggee ci biir ak question yi ñu di posé président ne kon président jàpp ni mbir mango comme ni ñu ko doon chaque année defe naa ne changement bariwul. ni ñu ko daan dawalee ay nombre de courses de mbaam yi ñëw wàññikuwul donc yooyu moom mm, technique la ñu bàyyi lépp sa loxo rek. Mm. nga def ni nga daan def chaque année. ah jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. di sant yàlla bu baax ci mbaaxam di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen déwénati di leen déwénati ci koor gu tedd gi nga xam ni. moom la ñu génnee yàlla daa dogal nag dafa am benn jàngat boo xam ni dama koo def muy jàngat boo xam ni ñun waa senegal yépp dañoo war a àndandoo wax alhamdulillahi rabbil alamin te sauvegarder ko te xam ni wax dëgg yàlla am na lu nu yàlla bëggal am na lu nu yàlla dëël kon ñun bu ñu góorgóorloo tuuti rek amul mel réew muy gën a jag senegal yàlla xam na ko waaw bu ñu góor góorgóorloo tuuti ñun senegal jël na naa kees mais amul benn réew boo xam ni dina gën a jag Sénégal ndax bu nu seetloo ren jii yàlla dimbali nañu ba coupe d'Afrique dugg Sénégal muy point boo xam ni ñu bari ci ñun yaakaaruñ ko woon yàlla dogal na ko mu ñëw jàll mel ni ñu neex yàlla dogal na suñu mbokk chrétiens yi ak suñu mbokk musulman yi bokk weer woo xam ni dañ cee àndandoo bokk ci koor wari ci mu rafet jàll neex ñépp am na luñ ci yàlla joxoñ mu am loo xam ni it wax dëgg yàlla dafa am ci biir loolu mooy murit tiijaan laayeen ñépp bokk koor bokk koor yi muy loo xam ni dafa am lu ñu yàlla joxoñ wan ñu ko ne nu Sénégal fi ñu teg seen tànk fa mag ñi tegoon seen tànk buñ ko fa tegee nii rek lay demee yal nañ yàlla dimbali ba mu yàgg mel nii yàlla dimbali ñu yàgg koo fekkee course mbaam bi it comme ni ko gaa yi waxee man maa yërëm ñi koy seetaan si yërëm gone yi ndax woor ba ngoon nara ree ba buñ la yóbboo nga ndog doo ko mën dafa diis gànn woor ci biir koor gi dawal course mbaam gannaa yow sax course mbaam bu dul koor boo reetaanee ba ñibbi da ngay sonn boo ci boolee xiif ak mar day mitti ñu ne nag wax dëgg yàlla kon tànk lu baax rek la ñu bëgg te duñu bëgg nit ñi bëgg am ci jàmm dund ci jàmm te yàlla dinu dimbali ba suñu turbine képp ku fa ñëw xam ni li ñu yàlla joxoon ñun ñu ngi koy def ndax ñi ngi dajale boo dikkee turbine course mbaam xàmme woo benn politicien dinañu ree di tàppante dinañ te loxo kenn ku nekk di wan sa morom li façon mbaam mi def te bokkuñu parti te bu ñu nekkee ci mbiti ña nga ci seen politique mais bu ñu dikkee ca tribune ba dootoo xàmmee kii lii la kii lii la dootoo xàmmee kan mooy chef ak ki nekkul chef vraiment kursu Mbaam dajale na loolu. ñu ne leen ni même bu dee juróomi dërëm ngay fay am na xale boo xam ne du am juróomi dërëm boobu pour dugg kon ñu ngi koy xañ seetaan bi ñu ne duñ ci laaj kenn dërëm danañu laaj nag bon volonté yi nekk ci dëkk bi dinañ laaj ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu ŋànk suñum réew. ñu ñaan leen ñi nga xam ni ñoom la yàlla may xol bu yaatu ba ñu mën a jàppale njaboot gi ñu ñaan leen lu ñu may ñu séddale ko gone yi daal di dem boobaak léegi nag yàllaa ngi ciy defal jàmm amuñu ci bor benn yoon donte jëlewuñ ci lu ñu yóbbu suñu kër di ko lekk mais amuñu ci borit ndax ñu ngi ñuy jàppale nag kemtalaay kàttan li ñu man ñu nit lu ñu am ñu ngi ko ciy def staff bii ma àndal bu fekkoon ne xaalis lañ fi toppee wala kenn ku ci nekk da ñëw pour am ci dara wallahi bàyyi nga ndax kursu mbaam bi du jeex ba kenn jële ci téeméer bu mat wala wala wala junni bu romb ñu ngi nii mais nag saa wu dikkee day mel ni ñoom tey jii la ñuy siy soog a tàmbali kenn ku ci nekk di nga jël sa nit ku baax koo am di nga ñu booleek moom fépp foo yaakaar ne bu ñu fa demee jële fa juróomi dërëm di nga ñu bëmax ñu dem fa te buñ leen woowee ñu sawar ci taxaw ci kon gàcce ngalaama staff bii may àndal suñu directeur technique le directeur technique de Mbamodrom muy kar Ndaw waaw Babacar Ndaw journaliste la su ko neexoon jël casquette journaliste am def comme journaliste damay ñëw couvrir la dem sama yoon mais def yàlla dogal la conseil bi mu jël ren man maa moom conseil bi maa ko maa ko nu koy waxee ci tubaab maa ko maa ko nan am na nu koy waxee ci tubaab récréation ah, ah, ah, déedéet bu la ma reetaan maa ko récréationné maa ko rikichonné téye Babacar Ndaw mu ànd ak ñun ci course mbaam bi te dul këram benn yoon njëgeen mii ku ko gis ci ci ci koor gi ay ndogu lay togg di lijjanti di def ca ndogu ya mais maa ko rikichonné man kii nga xam ni moom mooy daa Mbàkke moom it ku ne xam na kook si defem ku ne xam na ko ak liggéey ak ak ak góorgóorlu fu xibaar am ak nekk ci ak toppatoo ak émission am mais rikichonné naa ko moom it mu ànd ak man mbaay mii jabaram orchestre layor fu ne moom mooy manager bi di dugg di lijjanti ma réquisitionné na ko moom it mu ñëw ñoom ñëpp ku ma ci jël nga ànd ak yow nga nga nga nga ànd ak man jël lépp téye ko sa bopp yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla fay dëgg-dëgg sponsor ya daan ànd ak ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ndax kat yàgg na dix-septième édition ñu ànd ak ñun quel que soit alpha mbas mi da jaar na ci diggante bi yàq na liggéey ñu baree bari sonal na ñu baree bari mais képp ku la daan jox bu la joxul même lu mu dee dee dee dee même buy wàññi la mu la daan jox sax rus na course mbaam bi jàll te dikkul dugal ci doxam mbaamu tàllal la loxo mbaamu la leen loxo incha allah dinaa ñëw kon ñi ñëw gërëm nañ leen ñi ñëwagul gërëm nañ leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla presse su kees nag àddina bi ñun ñoo ci gën presse ndax gàddu say caméra yore say photo yore say rajo ñëw taxaw jël nit ki ba mu dem te paas rek du la ko jox ndox moo naan rek duñ la ko jox nga gëm ko xam ne dëkk bi la te sa liggéey la da nga koy def ni nga ko bëggee te amu ci kenn ku la ciy xool nga xool ci kanamam mu wane ni dëgg-dëgg man am naa lu ma naqari wala lenn gàcce nga laa maa yéen yéen rékk ci ko naa leen yéen dama leen rékk ci ko ne ndax xam réquisitionnaire euh, nan la waaye da may dimbali réquisitionné voilà waaye tàcc la mu réquisitionné naa leen voilà yéen presse si kees ak presse def te kees bu ko jëlee àddina bi yëpp yëg ko ndax fépp lañ koy yóbbu kon gàcce ngaalaamaa yéen yàlla na yàlla fay leen boroom dëkk yi nekk ci dëkk dëkkaan yi yor mbaam yi dañ may woo téléphone Sanokho kontaan nañ ci yow ndax seet nañ ne fàtte wooñu suñu duggee ci indépendance bi ba ñëpp di ñu bàyyi xel grace à yow mais yéen da ngeen bokk ci Sénégal borom dëkk yi di ma wax ni bëri na ñu xam suñu turu dëkk ci sa làmmiñ yi la jaar ba ñu mën a xam suñu turu dëkk ndax kursu mbaam bi fa mu yóbbu turu dëkk yi ñun mënuñu faa egg mais suñuy doom incha allah saa wu kursu mbaam bi amee yow foo ne dinañ la fa fekk ñu ne ma Sanokho bala nga woon a xam dëgg am ku dugg taxaw ci sa wet wala mu ñëw ne dalay contre ne dafa soxla ay mbaam ci suñu dëkk bii du fi génne benn mbaam mais yow boo teggi boo bëggee juróom benn téeméeri mbaam di dinañ la ko indil ma ne leen lool sant yàlla ndax li liñ ci bëgg mooy jàppale xale yi yàllaa ñu ci fekk ngeen fekk ñu ci yàlla yàlla dolli seen sutura kon képp kuy borom dëkk dëkk dëkkaañ yi wër kees ku mu ci mënti doon su ma limee mën naa bañ a matal sant naa leen gërëm naa leen di leen ñaanal yàlla xale yi yenu mbaam yi di ñëw kenn ku ci nekk yàlla la yàlla may réussite nga jàng ba am say diplôme teral say wajur teral Sénégal ndax kat boo bëggee gis mag ñu baax ëllëg defaral xale yi tey waaw ñun nag nañu daan def daan nañu def bu njëkk ba dawal ay quatre courses wala cinq courses ndax bu ñu dawalee quatre courses jël les trois premières ci courses yooyu dawal leen salange bi su ko defee ñu daal di dem directeur technique nag bu fekkee ne accordé na quatre course yooyu dañu koy accordé su fekkee ne nee na ma noxonoon wàññi benn bi dañu koy wàññi bu ne ma nañ dawal benn course ndax dañu koy dawal ndax nag kenn nit kenn du ko jiital di ko fakastal te Babacar Ndaw c'est le directeur technique de Mbama Dorom kooku bu nee nañ dawal cinq yi dinañ dawal cinq yi incha allah mais suñu yéene mooy dawal cinq courses yi ndax li fay ñëw ci mbaam mooy bari wax dëgg yàlla waaw waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf muy question bu am solo bu ma neex xam nga lu tax dañu ne musée musée fa ngay denc cosaanu yi nekk ci réew mi fa ngay denc bagage yi nga xam ni xale bi juddu tey. bu dundee ñaar fukki at ci kanam bu demee ci musée ba ñu wan ko loo xam ni ba muy am booba xalaatul woon judd musée bi nekk fii ci marché Sam xale yu bëri boo leen rombee ci buntu musée bi boo leen lii lan la duñu xam lan la am na ñu fi juddu ba màgg seen tànk mosul dugg biir musée te xam sa ay cosaan dafa jaadu te musée bi musée Thiès Course Mbaam yóbbu na ko fu ko fu fu ko dara yóbbuwul parce que tey jii ñii ma wër di presse bi am ñoo xam ni international lañu bu ñu nee mbaama dorom bi fan la da naan buntu musée ku dikk kees danga nga naan fan la musée ne ñu wax la fu musée ña nga xam fan la musée ne bu la neexee dugg am na benn tubaab mës naa fekk sama dessous bi ci buntu musée bi ba mu filmé bay ba pare daf maa laaj est-ce que dessous bi dafa bokk ci musée bi am déet lii la ma laaj ma ne ko bokku ci mais nag ci course bi moom moo waral course mbaam bi waaye ne dëkkul ci biir musée bi man maa koy war dem mu ne ma est-ce que mi ngi daw ma taal oto bi avancé mu jàpp gémmiñ gi xam nga ni kooku xam na suñu musée ah ba pare am na lu lu feeñ foofu mais bu ñu amoon lu ñu gënal du ñu jógee buntu musée ba ndax cosaan la te ñun cosaan la ñuy def mais xajatu fa yàlla xam na ni xajatu fa gouverneur moo toog ba ne ma saana ko pour sa sécurité yow pour sa sécurité yow vaut mieux nga jëlee ko fi yóbbu ko course ba ndax lii xajatu fi su ma fàttali ko xale yi yéegoon ci xay ya am na ko fi daanu woon ba ba sapeur pompier ñëw jël yóbbu ko xale boobu bu lor woon sama responsabilité ngi ci biir kon xajatu fa te mbaam yi dañuy daw ne daga ci biir boy yi kuñ ci wéq gaañ la kuñ ci laal gaañ la dangay jekk-jekk mel ne mbaam réer ci biir marché bi borom di wëri mbaam mi ci biir marché bi mbaam moom bu fa gaañee kenn ñooy am problème te course ba nag fan leen dugal mbaam du mën a rëcc bay dem fenn looloo tax ñu ne kon course ba fi mu ne nii neex nañu lool wax dëgg yàlla ndax indil nañu noof waaye nag musée moom ak course mbaam yaakaar naa ne am na lu leen lee wallaay ndeysaan waaw merci ba tey leneen leader yi am na ñu ci jàpp du mën a ñëpp jàpp nañ am na ñu ci jàpp waaye sama sëriñ ba sëriñ ma dikk sekk borom yàlla nee na dafa wax ni soow soow mën naa ëppante bari waaye mënta ëppante weex-weex soow daa weex rek ki la jox juróomi dërëm ki la jox ñaar téeméer ki la jox ku ne nekk jox na la mais ku ci nekk xaalis la la jox yëg-yëg dafa am cax bu ma mës a cax ci sama émission ma ne li gor gën a bëgg te moom la sàcc gën a bañ li gor gën a bëgg te moom la sàcc gën a bañ gor loo ko defal te yëgoo ko bëggul lool mais sàcc bëggul ku ko yëg sàcc ku ko yëg rek lay bañ mais gor loo ko defal te yëgoo ko bëggul loolu gis nga ki lay jox ak yëg-yëg ki lay jox ak xol ki lay jox ak loo xam ni santoo ko ko doxoo ci ba sonn waxoo ci ba sonn ak ki nga xam ne da ngay topp ci moom di daw di daw ba mu la la jëlee la waay mënuñoo doon benn te moor daf ma doon ñëw ca suuf sa daan nañ ma jox ca suuf sa mais dikk na ma maa porté course bii jël ko maay joxe prix bi maa ciy def moom dong la daan nañ autorité des yëpp ñu ngi may jox mais suñ ma joxee dama koy def ci añ baag reer baag bagage ya ak li loo yi may joxe te moor damay jox pour loolu ba pare dikk na ma course bi maa ko jël en charge mbaam bi ñëw du raw dinaa ko jox nangam ñu wax ko presse bi jël ko heure boobu jotee mu def ko jar naa gërëm wax dëgg yàlla soow na nag comme soow yëpp waaye bari gi la ñuy wax noo xam nga dafa am loo xam ni dama ko daan éviter bu bari ba léegi ma koy éviter xaw ma éviter la ñuy wax xaw ma invité waa éviter dee leen ma dee leen ma corriger dee leen ma corriger jàng naa nag waaye sama làmmiñ xëy na mooy bañ waaw dee leen ma corrigé euh, comme lu ma la wax soow la comme soow yëpp mais li wér te mooy am am na question bu lu ma laaj léegi am na pare ak mare man leen dafa am lu muy évité ndax course mbaam bii dama ne fekk maa ngi koy def man ñaar yi duma ko ci dugal duma ci dugal entrée payante yàgg naa ko wax te maa ngi koy waxaat duma ma ko politiser benn parti muumu ko parti yépp ko bokk ñaar yi kooku moom noonu lay doxale duma ko politiser du ma ko def entrée payante alalu kees la feetu indépendance a ko yëkkati te bu ma sañoon ñépp bokk ci moo taxit yàlla fekk si na ma ci ba boo dikkee ca tirbine ba parti yépp nga fay fekk ñu bokk ndey ak baay ànd ak man ci course bi ku ne jël say teraanga jox ma ñu sant la gërëm la tudd sa parti it ne xam na ni dimbali nga ñu waaw ku ko def ñu wax ku ko deful nag mën nañ laa gërëm rek te noppi waaw waaw bu ñu yàlla dimbalee ba ñu génn koor gi bëgg nañ koo delloo 3 avril mais boo seetloo tey ñun ci ah maanaam koor gi la ñu dajal am na kilifa gu am xam-xam gu baax gu ñu ne yéen est-ce que xam ngeen ne ñetti at yi ñuy jëm yépp ci koor gi lay tombeel ñu ne ko ah mu ne calculer defal ñu calcul bi wan nañu ñetti at yi ñu jëm wala ñaar yépp ci biir koor gi la ñuy fekk incha allah yàlla nañ ko fekkee ba weesu mais bu yàlla dogalee ñépp gëm ne génne ko koor gi génne ko koor gi génne ko ndax ndax ndax ndax nit ñi mën a dund kooku nu mu leen neexee moo leen gënal dañu koy continuer mais bu ñu nit ñi waxee noxo def ko ci biir koor gi dañ ko ciy def ndax am na dàq koor waaye li may bañ kenn fe wax reetaan fa ba indi problème te it koor wax dëgg yàlla bu ñu amoon lu ñu gënal man sama émission yi may def sax koor dama koy aj ba koor gi jàll damay jël ci laay jël sama conseil waaye bu yàlla dogalee nit ñi bëgg ko it dañ koy def rek xale yi li ma leen wax c'est clair ku ku nekk xam na ni dëkk ak dëkk yi dañoo xaw a génn kees dañoo sori te indi mbaam dafa jafe te duñ leen yàpp ci oto dañ leen di war mbaa ñu leen di womat looloo taxoon ma am initiative toggal leen ay añ xale bu xëy suba këram mu jóge fa ñëw bu dikkee dinañ togg ay añ jox leen boisson ak ndox mu sedd ñu toog noppalu dal moo tax ci suba gi la ñuy xëy ku njëkk ñëw ñu bind la comme ni ñu arrivé noonu lañ leen di jële njëgeen mii moo leen di jël ak sama gars yi di bind seen tour xale bu ñëw ñu bind sa tour jox la numéro xale bu ñëw ñu bind sa tur jox la numéro léeg-léeg daaw sax dañ ne woon duñ dawal téeméeri mbaam ndax Covid bi mais mujj na loo dawal daanaka téeméer ak nangam te mënuñu ci dara ndax xale yi seen feet la munuñu xale jóge dëkkam ñëw ñu la ko doo dawal mais buñ sañoon nag danañu teel a ñëw ndax ñu mën a dawal boo gisee ñu leen di jox 2000 francs mille francs jóge sa dëkk ñëw ak sa coono ñëwoon war a delluwaat ak sa coono te yóbbuwoo dara suñu xol àttanu ko donte amuñu ko moo tax enveloppe yu ñuy jox moom la ñuy dajji xale bu yéeg ci rang bi bala ngaa départ ñu jël ñeenti téeméer jox la ne la ñeenti téeméer yi sa ndàmpaay la ci yoon wi loo gañe nag ñu jox la ko nga yóbbu kooku bu gañewul dara it buy ñibbi añ na ba suur dina yore 2000 ci poosam bu ñu amee t-shirt may ko bu ñibbee xolam mën a seet loolu lañ ci jublu xam nga mbaam amul comédie da wax ay feeyam rek pare ci mais jeex na mi mbaam amul comédie comédien bu la fi indi mbaam ne da koy comédie dafa nettale histoire rek baat ciy pare yàlla xam na ko xam nga mbaam ku silwiise la mbaam silwiise xam nga kan moo silwiise ku bañ ku ko yàpp xam nga daaw jéeg dafa am benn boy sareetu mbaam la yor takk mbaam mi ci sareet bu ko ne ali fu dal fu calme mbaam mi wutiir bu mu romb dina la duble yàlla xam na ko wutiir bu mu duble wuti wutiir bu mu bu mu jublul da lay doublé tellement mbaam mi dafa gaaw waa ji ñëw dawal mbaam mi ba fekk ñu mbaam ya yeew mu ne waa grand lu xew fii mënu ko course mbaam mu ne ko ku gañe looy am mënu ko loo yi ci taabal beeg kub yeeg yooyu di nga am xaalis di nga am ngooñ mu ne ma may ma ma dem tekki ji mbaam mi may ma may ma rek grand ma dem tekki mbaam mi maay jël bee maay jël ne ali rek mbaam mi ne bëri départ di dox lu bari ba mbaam ma dawee ba egg këram mu tekki ko war ko di dawal mbaam mi mbaam mi di daw lu bari ne xam nga noobul mbaam noobul la buggul bruit buggul ay xanjang-njang ay musique booy bi dikk dëkk ci toog ci rang bi ñu ne ëpp laa départ mun na ko yar faraj mbaam mi wëlbati ko jàkkaarloog tribune bi mu wéex wéex mbaam mi jàkkaarloog tribune bi mu wàcc ñoddi ba mbaam mi jublu la mën a ñonkaat de ko acca mbaam mi wëlbati ko waat jàkkaarloog tribune bi nangu la dox meetar boy bi mujj mën a mais lan la grand luñ fa suul man ko yaa ko gëdd dafa siluiche ah yaa ko gëdd mais li ma gën a neex ci course mbaam ma at mënu njëkkee tudde maître Ablaye Wade course mbaam dañ ne xale bi ne ne mbaam mi Ablaye Wade laa ko tudde tribune bépp wàcc ñii dix mille mille ñuy jox booy bi xaalis booy bi bari xaalis ci minute rang ñu rang départ ñu ne Ablaye départ Ablaye tëdd booy bi yëkkati wéq Ablaye tëdd Cheikh Cheikh naan Ablaye doo dem Ablaye tëdd na ma ma Ablaye tëdd nguri la bilaay doo dem booy bi wuti yat mënu ko doo ko dóor de ndax taanal ba mu jum doo ko dóor mbaam mi lang fa la tëdd ba gaa yi ñëw musoo ko foggatu jóg ju romb naanam xam naa ne nag ceebatu na ko ñàkk fay damay ba gërëyee ba mu gërëyee laa sol samay dàll yàlla yàlla dolli sutura yi. Eh, eh, vraiment je suis content avec mes amis avec le staff Koulsou surtout mon ami le directeur technique de Mbamodrom Babacar Ndaw actuellement il est en congé mais il prend le congé il me l'a donné je le réquisitionné ah. c'est le réquisitionné pendant la la la la la période de course daan kon Babacar Ndao ka jëwu gàddu bokku la presse vous êtes très brave vous êtes des professionnels vous tous quand je dis j'ai j'ai un conférence de presse vous tous laissez tout et venir sur moi je suis content que Dieu vous garde beaucoup euh, votre télévision votre radio votre euh, euh, site parti en haut et, tout le large dans le, dans Sénégal et, dans le Adino tout. Voilà, que Dieu vous garde. Merci. Merci. Il n'est jamais gagné en BAM. le courrier le, le de BAM. Ah, et, le, et le, le, le, Grand Prix, quand euh, dans les, les, quatre courses, le Grand Prix, tu prends les trois premières, euh, chaque course, ah, et le, dans le, le, le Grand Prix, ça lance mettre à avec le le, le monsieur euh, euh, euh, Mor Diouf waaye kon nag je j'invite tout tout le monde venir j'invite tout le monde les marabouts les les les les les les ménages tous les ménages c'est les ménages c'est le monsieur ak tous les ménages sont venus dans le Koursu Mbam je remercie les sponsors parce que ils nous ont accompagné tous les sponsors qui venir je les remercie qui venir pas je les remercie Mais effectivement, l'organisation au sein de course, c'est bon. C'est très bon. Mais euh, devant le musée, c'est plus bon. Parce que le musée, c'est notre patrimoine. Le musée, euh, ça, euh, tous les, tous, tous les, le patrimoine du Sénégal, on se l'a cagé là-bas. Le Mbamodrom, c'est le patrimoine du Sénégal. Donc, nous les Sénégalais, devant le musée de Sénégal on fait là-bas le, le course d'âne mais vraiment c'est c'est c'est c'est autre c'est autre chose c'est de l'autre affaire n'est-ce pas mais nag c'est trop petit pour nous parce que y a beaucoup de monde là c'est pas sur avec les enfants qui traversaient euh, euh, la euh, le Gadron et, et, le marché parfois les les ânes partis dans le marché tout le monde allait pour récupérer le ânes c'est pas sûr le gouverneur qui nous a dit il faut aller au drom là-bas dans le de course parce que c'est plus sûr c'est plus yaatu y a pas de yenu ay turbine venir et y a le turbine et là-bas il faut la aller ma la je lui dis c'est normal kon nous tous partis là-bas rek li nga maam prend notre mbaama drom fait le course kon je remercie tous les organes de presse je remercie tous les organes de presse je remercie tous les organes de presse le nombre de participants actuellement c'est 100 daal champ mbaam pour l'instant mais y' a pas l' argent pour donner les champs mbaam les champs mbaam rek le dans un premier temps c' est deux cent mille si tu avoir pas deux cent mille aussi parti où kon les bonnes ont volonté il faut venir waaw parce que chaque daan deux deux deux mille francs ah dès le départ parce que les enfants partir venir dans votre les villages venir jusqu'au ici faire le course tu n'as rien dans ta et tu veux retour ça me fait mal. parce que c'est c'est c'est parce que c'est c'est c'est c'est parce que lu ñuy waxee moo tax ah c'est pourquoi je prends les 2000 donner l'enfant si tu gagnes tu as ton mille si tu gagnes pas tu as ton 2000 quand tu fais le course si tu gagnes tu prends tes 2000 avec tes lots tu pars si tu le grand prix pour euh, l'argent bon l'argent euh, je je je ne le parle pas parce que j'ai collecté demandé les bonnes volontés quand il m'a donné beaucoup d'argent j'ai donné beaucoup d'argent quand m'a donné pas le d'argent j'ai donné un peu parce que j'ai surtout surtout les autorités le course dans la on dit c'est pour Sanokho mais non non c'est pas pour Sanokho c'est le course dans de Thiès c'est le course dans de Thiès il y a des gens qui regardent Thiès faire des courses d'âne lui il le fait dans votre euh, les régions j'ai j'ai vu le réseau euh, de de Diourbel de de de de Diourbel à Mbacké il fait le, le course d'âne Louga on fait le course d'âne mais on l'a vu ici à Thiès n'est-ce pas nous notre souhait le Sénégal tout il fait le course d'âne parce que c'est c'est notre culture mais les Thiessois le le le le le les deux à part le gouverneur jusqu'à les qui qui est trop petit dans l'administration et les politiciens ici à Thiès c'est notre fierté de faire Course Mbam ici à Thiès il faut sortir il faut donner de l'argent parce que j'ai vu j'ai vu quand tu pars dans les les autres organisations vraiment je me fais mal Parce que tu pars quelque part, tu dis, quelqu'un, il a le maire, le, le, qui, il a donné 2 millions pour, cet pour, pour cet euh, programme. Mais le programme là, c'est pour Ben Kirek. Hein? Euh, on a subventionné 5 millions. Et pourtant, notre course Mbam là, c'est plus grand ça. Notre course Mbam, avec les enfants. avec les vieux, avec les mères qui restaient dans les maisons. Le média fait en direct. Tout le monde fait rire. Tout le monde fait euh, dégager le stress. Hein? Effectivement, effectivement, c'est normal. Tous les maires, tous les communes d'arrondissement et les maires villes, on leur donnait leur silfation, apprend le, le cours d'âne comme votre affaire. Il faut le prendre au, au mains foo ma a oomee lañ koy wax xaw ma daalaawee jàpp leen ko ci seen loxo waaw téye leen ko te xam ni yéen a ko moom seen alal la ñun dañu ko dañu koy doxal rek waaw